jëranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a mbokki téléspectateur le Rufisquois TV ah gars a ngi seen émission émission bu mag bi Job sa life le métier de la vie yaa xam ca la nga ne di ca yëngu ah di ca daan sa tey nag ñu ngi fii ah, ci Fass Containers seet si benn ndaw ah, di jàmbaar di ku nangoo liggéey macha allah muy yëngu ci wàllum euh, jaay fëgg jaay du ñu def dara léegi lu dul ànd ak suñu caméraman ah, ñu dem xooli ko. gaay na nuyu la. cheikh bi ñu ngi lay ziar. waaw si ziar nañ grand bi. cheikh euh, ngay yëngu ci wàllum euh, métier bu ñëpp xaw a ràññee ñu bàyyi xel fii di wàllu business ban année nga dugg ci liggéey bi. métier bi maa ngi ciy dugg en 2016 bon boo xoolee maa ngi démarré ndargu ndaw ndargu ndaw laa démarré en 2016 après nekkoon fan na trois ans def fa trois ans waaw ah, foofu nag ménage bi daan dox bu fekkee doxatul donc. si la ñëwee fii sama buntu gaal créer sama propre business ba léegi fi moom macha allah affaire yi waaw mu ngi dem bu baax a baax. nekkee ndar gu ndaw lan nga doon jóor foofu. waaw ah, bon comme li nga doon jaay ma doon jaay ay yére mayo di koy ay ay costume ay yére yére traditionnel quoi aussi nekkaloon sama benn grand boo xam ne tailleur la mu euh, daan ñëw ay costume ay ay yére traditionnel donc dama ko daan boole bagage yi ay mayo boole ak simis yi affaire bi daan dem quoi. Cheikh lan moo la inspiré wu ci business bi. bon lu ma li ma inspiré si business bi mooy euh, boo xoolee en 2016 juste après ba ma may bac. jàng nga bam bac. def naa waaw def naa bac def naa deux fois bac bon en 2015 2016 deux fois après après bac bi amoon sama benn tante bu ma proposé woon joxoon bitik quoi comme pour jaay rek quoi si vacances yi. moo mm-hmm. tax foofu laa tàmbalee ba ba nii nii daal. nga tàmbalee quoi ci wàllum. sama benn tante moo créé woon benn benn benn shop jox ma ma géré nekkoon foofu ba ba nii daal voilà voilà noonu yow da ngay xëy dem Colobane di jënti say yi wala yow da ngay commandé ay bal. non damay xëy dem Colobane boo xoolee man sax sax euh, chaque lundi ak chaque vendredi laa ëpp lu may dem Colobane bon damay dem Colobane damay dem per Petersen ak Sandaga yëpp parce que affaire fi moom multi service la dañuy dañuy mélanger lépp. mais jaay bal di jaay mayo waaw boo xoolee su ma demee Colobane foofu laay njëkkee course lu may course pare dem si bal dem ci kaw retaillé ko passé après dem dem dem dem Petersen wala wala sànni ko xool ay mayo waaw noonu laa koy noon laa koy kii daal. daal da ngay dem ci bal bi boo demee jënd yóbbu gars yi reta retraillé la affaire yooyu passé lépp boo xoolee tubéy yi chemise yëpp foofu laa koy jëlee léegi mayo yi ak robe yi maa ngi koy maa ngi koy course Sandaga seen est ni nga koy utee foofu dina yomb du am benn jafe-jafe ay quelques difficultés yooyu jànkonte non du metti parce que boo xasee ba miin business bi rek du metti quoi parce que boo xoolee am na ñoo xam ne aussi dañuy jënd bal bi am na ñoo xam ne aussi dañuy dañuy dañuy trier mais am jënd bal bi nag moo ba xaalis waaw moo ba xaalis quoi parce que am même bu bu dee da nga am yoo xam ne aussi dafa dafa xaaw ñaaw mun nga dem retailler ko ba mu ba mu nice def si poids ñu def si lépp ba lépp nice après passé ko ba mu clean daal waaw affaire daal méttiwul daal. il suffit nga nga naan business bi rek waaw si léegi nag yombee la. lan moo arrêté sa étude exact bon sama étude bon lu ko arrêté bon affaire bi si la bokk na parce que boo xoolee dama dama ko daan boole daan boole étude bi ak business bi léegi ma dem ba si digg bi xam ne business bi moo gën a dox jàng bi tamit xam nga rek fii da ngay gis ñoo xam ne dañuy am bac après xam nga rek yaa ma gën a xam voilà. léegi man daal ma xam comme quoi. donc xam nga Sénégal moom benn esprit bon gis nañ fi ñoo xam ne dañuy am bac am dem am licence am lépp du du mujjee fenn mm-hmm. man daal ba ma toogee analyser loo xam xam ne lii étude du dem mm-hmm. ma ne bon kon il faut ma bàyyi étude yi mm-hmm. jéem a concentré sama business bi quoi te gis naa ne affaire bi mu ngi doon avancé bu baax a baax waaw loolu daal moom. arrêté études yi côté moyen la wala dafa jàpp ne business bi si nga gënoon gis sa bopp. bon moyen am na si aussi tamit business bi tamit am na si quoi. waaw ñaar yëpp daal ñaari ñaari côté yëpp joué na si. ñaar côté business bi nga gënoon a gis. voilà business bi nag laa gën a parce que gisoon naa que ba NS bi ñu bëri ñun ñu ñu ñu ñu naan ma euh, il faut nga concentrer si études yi. ma ne leen non mun naa boole ñaar yëpp après ba ma demee ba si digg laa xam ne business bi daal gis naa ni mooy mooy sama waaw mooy sama avenir donc euh, après c'est la bàyyi études yi concentrer sama sama business. kon dafa mel ni daal saaba diir dire que daal côté moyen da ci xawoon na am quoi. waaw benn si bi feeñ na si nag. comme comme lan noonu. waaw ah bon moyen bi xam nga rek paa bi aussi daan na ma xam ma nekkoon naa public. boo xoolee jaar naa pionnier jaar naa lycée moderne après bon yàlla def yàlla dogal ni après passé ma année boobu amoo moyen après père bi si la ma yóbbee école privée ak fu ñu naan académicien def naa fa bon seconde ba terminal xam nga rek après paa bi xam naa fay bi xaw a dëgër si ko dem. war nga mën a job sa life daal waaw war nga mën a war nga mën a job sa life ba am sa yëfu bopp waaw après ma naxantex ñoom ba ba yàlla def li def def li gën daal voilà noonu la demee. Hmm. nga nekk nii yaa ngi fi yaa ngi fi yëg sa bopp. waaw bu baax a baax boo xoolee sama bundu gaale laa nekk waaw fii sama bundu gaale la boo xoolee fii aussi mais tali la gars yi dañuy romb dañuy romb gis ay affaire nice ah buñ ñu rombee jël dem yaa ma gën a xam. waaw fi moom franchement placé na quoi te boo xoolee sax ba may tàmbale fi bon kenn nekk fi woon fii amu woon lampe gis nga ñii ñëpp fii ñëpp amu woon amu woon ay magasin maa ñëw créé sam benn sam benn mbaar bu ndaw fii gis nga amu woon sax karo suuf la woon maa sam benn copain bu ñu naan Papi Diop ma koy nuyu de passage max moom ñoo ñoo démarré ndoo fii fi ni fer la ñoom takk fii fi ni fer di si wékki yére yi ñuy def nanka nanka nanka nanka ba karole def ni xam nga rek ba affaire jël jël forme daal waaw mooy loolu. nga ne ça que bi ngay tàmbali boo fi amul dara. amul woon dara amul woon lamp wéetoon na trop même sax guddi gi sax daanoo daanoo ñeme daanoo ñeme jaar fii boo xoolee sax man avant timis sax may wàcc tellement fii dafa xaawoon dangereux mais léegi moom naa ngi. ban heure ngay wàcc léegi. bon léegi maa ngi wàcc minuit parce que sama gaale laa ne juste waaw sama gaale laa ne quoi minuit laay wàcc boo xoolee des fois sax une wala bu dee sama gars yi ñëw nañ ma prolongé ba deux heures waaw teg ci ataaya yaa ma gën a xam daal. est-ce que job bi yomb na. non métti na trop. waaw métti na trop parce que boo xoolee bagage yi ngay gis yëpp du ma ko bàyyi fii parce que mosoon nañ ma daaj ji ñaari yoon. waaw heureusement sax fekk fi bagage boo xoolee bagage yëpp dama koy jël bugg ko sama gaale chaque jour installation bi tamit aussi métti na trop boo xoolee dinaa installer plus de ba de deux heures de temps waaw pour fii pour pour fii jël forme daal. mais yow da ngay xëy dem kolobaan jënd yi ñëw xam nga business wala da ngay woote ñu indi waaw non damay xëy dem Colobane boo xoolee sax man euh, semaine bi deux fois laay dem Colobane boo xoolee lundi laay dem ak euh, vendredi waaw mais Colobane man su may dem nag Colobane laa njëkkee parce que boo xoolee si bal euh, si bal bi laa njëkkee côté samay tubay ah samay semis samay pantalon ah su ma samay semis samay pantalon. après dem ci kaw kolo ba xam amna na am na parti fa lañuy wañé fa lañuy passé dem job ko passé ba lepp nice ba mu pare après continuer dem Dakar xol ay moyo xol ay rob Dakar peut-être seen Sandaga foofu jindé jëndee moyo foofu laay jindé ay ay rob waaw sama sama parcours dal non lay démé dal ben dañu gis euh, business bi nga bolé ci leneen na, nga melni kuy jaay ay mayo ak affaire yoy dafa melni dafa am beneen edit bo xamné da ngay job ak ñom wala. waaw bo xolé dina job wa waa MPS muy Pamar ma koy nuyu de passage parce que boo xoolee sax même ndargu ndaw ASC ndargu ndaw ASC ndargu ndaw man fa laa juddoo donc fa fa laa joué football football naar maa leen mos a jaayal seen maillot seen maillot yëpp seen maillot officiel maa ko daan jaay ba may nekk ndargu ndaw ba fii maa leen koy jaayal waaw donc moom sama partenaire la aussi damay jaañ cargo des fois damay jox ay ay ay ay bagages ma ma ma koy ma koy dóor waaw jaañ cargo quoi mu ngi nekk Colobane waaw dëgg yàlla ñoom daal ñooñu samay partenaire leen si si si job bi daal te ñu ngi si jàpp bu baax a baax te solo ñu ma si dara nag waaw ah, franchement teguñu ma pression xam bu leen neexoon aussi chaque instant ñu sonal ma ne ma bàyyi affaire yi bagage yi fu mu toll. dañuy bàyyi ma bisan affaire yi après heure ma leen joxee après ñoom dañuy dañuy jël quoi waaw ah, samay grand yi baax leen dëgg yàlla waa MPS ak Diagne Diagne Colobane waaw. Ah. frère est-ce que mas nga am lu la metti ci liggéey bi ba benn jour nga bëgg mel ni ku découragé. waaw boo xoolee am na un jour aussi ma yow maire daal moo doon dem bidig na ma sa bitik bi daaju nañ ko waaw jour boobu noonu boo xoole sax boob sax la la la la débuté. jour boobu non réactionné. non affaire bi métti woon na ma trop mais heureusement heureusement yàlla dafa def ni man sama bagage yi du ma ko bàyyi boo xoolee yëpp dama koy jël yëgal ko ci kaw mais boo xoolee c'est man bagage sax grave mais maanaam geste bi gars yi def man moo moom moo ma xaw a métti quoi yow nit créé business business am kenn jàppale ko mu dem ba créé lii hmm? benn vaurien yi ñëw rek bëgg a yàqal quoi. ah te loolu dafa métti trop quoi dafa dafa dafa métti waaw loolu laal métti woon na ma trop quoi te franchement loolu moom nekkul affaire bu rafet affaire bu nice waaw xam nga jeune moom mais pourquoi pas mënuñu def ni man ah créer sa propre business ah. fi réew mi toll. Ah, fi réew mu toll kenn jàppatul kenn loolu kese loolu daal moom moom loolu kese moo moom a métti si si business bi quoi waaw daaj bi ma bi ma bi ma daaj loolu métti woon trop mais heureusement sax bagage yi waaw laal ñu si dara quoi. Ah, waaw mooy loolu. dafa mel ni da nga am ay client partout ah. waaw client yi moom boo xoolee fu ne la ñuy jóge parce que sama même sama client yi nekkoon Ndargu Ndaw sax dañuy jóge Ndargu Ndaw ba fii di jënd si des fois aussi am gars yi romb ah ñëw am am am lu jël même waa koñ bi aussi ñu ngi siy jàpp ma la ñu nuyu de passage koñ bi moom franchement ñu ngi siy jàpp bu baax a baax waaw waa Fass Conteneur franchement ñëpp si man la ñuy jëndee te bu te bu leen neexoon ñu dem jëndi marché wala ñu dem jëndi feneen mais dañuy ñëw pour jàpp si liggéey bi. parce que dañoo gis ni benn jeune boo xam ne ñoom daal gis ne ni kii daal gëree la quoi gëm na boppam ñu ne xaa ñu jàppale ko daal poussé ko motiver ko daal waaw waa koñ bi moom franchement mention spéciale waaw mention spéciale waaw waa koñ bi. Bachia gis nañ ni nga nekkee ndaw ah am ambition di góor yàlla ah, teg lu mel ni début bi bi nga koy teg. méttiwul woon ci ay côté lu ci mel ni ay waroo teg fii cantine bi waru tegu fii ci kaw tali bi la voilà. waaw loolu amoon na nag quoi parce que cantine bi moom garaawul mooy ma expliqué sànq boo xoolee mairie moo daan jaay fii ay légumes ay dugub genre yooyu noonu dafa am tamit un jour sama premier sama première fois may installé waa mairie dañoo ñëw après gis de quartier bi ne chef quartier bi laa jógee quoi waxtaan neen nee na ma sa mère moo daan jaay fi donc yàgg na fi quoi ñu ne ma bon gis nañ ni maire beegam moom mais aussi dama si si yoon nga ne tali nga ne donc il nga fay ah ma ma ne ko ah grand wax dëgg yàlla moom man maa ngi doog a demande tey mooy sama premier jour ah pour fay nag dina xaw a métti trop. papa ñu ngi lay ziar. daa delloo ziar grand. naka mu mbaa lépp jàmm. ça si jàmm bu baax. alhamdulilah. tey ñëw fekk la ci boutique bi. nga mel ni client nga de. waaw waaw client am buy bu fi ñëw lu bari quoi bu fi fréquent lu bari parce que ça Cheikh moom suma bro la quoi. waaw depuis le début ba mu nekkee ndar gu ndaw xam nga si laa doonee client fidèle quoi daan jënd si moom xam nga ba affaire yi yaatu nii xam nga may ñëw ba léegi fii laa jëndee mooy yi may sol yëpp moo ma koy jaay ak mook sama gars yaa ma gën a xam te moom borom baax la xam nga des fois dangay ngay ñëw xam nga mu wàccee le prix bi xam nga da ngay a jënd xam nga rek solu dem quoi te yii nii dañ daan dem ba Dakar di ko amee foofu noonu xam nga rek paas beeg yooyu noonu yi dañoo yombalal lépp quoi xam nga moom moyen cher la koy jaay doo paas doo def dara quoi moo tax fii daal mooy suñu shop quoi yaa ma gën a xam. tey ñu ñëwoon fii ah seet si benn ndaw ah di jàmbaar di góor yàlla sànc teg lu mel nii ah, di ci job life am le Rufisquois TV ñëw indi benn émission tuddee ko job sa life le métier de la vie tey ban message ngay lancé ndaw ñi. waaw comme job sa bi nga wax rek comme yéen seen émission yi mu tudd quoi. suivre naa ko benn yoon xam nga après c'est très intéressant quoi waaw waaw bettu nak ngeen ñew fi quoi parce que mom moy lolu quoi lolu lay woné quoi xam nga commencé na xoslu moy lolu affaire yi taroon trop xam nga mu commencé dem ba yëkëti commencé ndank ndank bay am li quoi waaw comme que mom exemple la quoi yaa ma gën xam comme jeunesse yëpp mën nañ jël exemple ci mom quoi parce que dafa job laay fam xam nga affaire yi yëpp ñëwagul carrément mais xam nga mi ngi ci kawam quoi loolu mooy essentiel bu quoi da ko gëm gëm-gëm la rek xam nga ku nekk daal fi nga nekk daal nga gëm ko xam nga taxawu bañ xaar kenn quoi nekk ci ba yàlla ñëw quoi man loolu laa xam quoi vraiment. ayca copain ñu lay jaajëfal. jaajëf rafet na merci waay. télé bu am solo gis nañ fi réew mi toll la ah. le Rufisquois TV ñëw indi benn émission ñu tuddee ko Job sa Life. le métier de la vie yaa xama ah, ca lépp la nga ne di ca yëngu di ca daan sa doole noo gisee émission bi di Job sa Life waaw dëgg yàlla émission moom gis naa ne émission bu am solo la quoi parce que boo xoolee sax saraan naa seen première deux épisode bi quoi Yakhli Bass après beneen si maa lay oo sax na la mais léegi mais émission bi bon franchement bon am na sens quoi Job sa Life bi hmm? parce que même booy def émission sax di nga gis am na maanaam ku ku ne dañ ci gis sa bopp daal waaw émission bu am solo la. wax dëgg yàlla moom aussi loolu Rufisque quoi boo xoolee bon chaîne bu bu ñëpp di suivre waaw man aussi damay suivre seen seen seen seen kii seen seen vidéo am na ay vidéo yu bëri yoo xam ne dafa dafa laaj ay télécharge du ko sama machine. kon topp actualité télé bi. bu baax a baax dama koy suivre bu baax a baax waaw chaîne YouTube bu bu bu cool ko quoi franchement man moom dama koy suivre moom waaw wax dëgg yàlla dama koy suivre bu baax a baax a baax waaw. tey jii booy gën a conseillé ndaw yi ci lan nga leen di gën a conseillé waat ci ñu gën a góorgóorlu ak fi réew mi toll. waaw mais ñu gën a góorgóorlu rek man daal ndaw yi ñoom lu may ni conseil mooy nañ jéem a xool na la créer seen propre business fii loolu moo fi am quoi kenn jàppatul kenn loolu kese la nañ jéem a créer seen propre business gëm ko aussi nit nit ki loo gëm rek après yàlla dala si jàppale man daal loolu laa leen conseil affaire woon dara tout début difficile mais après day neex man fii dafa métti woon bu dafa métti woon trop boo xoolee ay findi fer laa daan buurale fii xam nga rek par la suite def karole teg sama beneen waaw te ñaan naa yàlla aussi créer benn shop bu mag waaw man moom loolu laal loolu laa gëm te aussi tamit loolu laay conseiller jeunes yi daal nañ góorgóorloo gëm ko waaw dina baax daal. incha allah Papin gis nañ ah dëkkandoo bi ah dëkkandoo yi ak dèjà gis nañ bi ñu fi nekkee boobu ba léegi dëkkandoo yi dem bi ñëw bi ku ne ñëw nan nga nekkee ak dëkkandoo yeeg ak sa gars yi nga nekkal fii. waaw wax dëgg yàlla moom waa koñ moom zéro problème quoi des fois sax dinaa leen déranger xam des fois ma yokk son bi waaw xam nga rek boo xoolee son aussi si si si si si métier bi la bokk daal après sax damay ñëw jéego ñu ne man amul problème affaire yooyu noonu quoi wax dëgg yàlla même aussi ñu ñu jàpp si liggéey bi waaw waa koñ bi aussi man maa la ñu ni bu baax ñu jàpp si job te bu leen neexoon aussi ñu dem jindi feneen waaw parce que gis nañ beneen beneen ndaw bu créé benn business am ñu ne kii war nañ ko mën a teg loxo waaw dëgg yàlla moom ñu ngi jàpp sama sama sama job bu baax a baax waaw maa ngi mention spéciale daal waa koñ bi wax dëgg yàlla. le mot de la fin. waaw ah, bon maa ngi maa ngi remercier bon di lay di lay gërëm franchement sama sama grand bu baax nga parce que boo xoolee émission bi yow da nga waxoon sax yow euh, si ma nga koy démarrer. mais boo xoolee ak chantier yi xam nga rek des fois ma ñàkk jot. maa ngi gërëm sama gars ay ñoom Cheikh euh, ñoom Papis Sele Moussa Fall Sele moom boo xoolee ak Moussa Jusso ñoom ñoo taxawal émission bi waaw maa ngi remercier bu baax a ñoom moom franchement ñoom ñoo tax lii am daal waaw maa maa la ñuy gërëm bu baax a baax bon bagage nag pour ku si bëgg sama numéro téléphone bon cent 118 la cent 197 17 67 waaw képp ku bëgg a maillot chemise cargo fii laa am na lépp robe bu jigéen lépp waaw képp ku si bëgg bon man moom damay déplacé wu livraison à domicile am na aussi. waa dëgg yàlla émission bi émission bu bu am solo la di ñaan télé télé télé téléspectateurs yi ñu suivre émission bi am na sens trop nag. waaw am na sens trop émission bu am sens waaw dëgg yàlla moom waaw. acca gars yi mbokki téléspectateur wu le Rufisquois quoi ah gars yi mu ngi noonu ah yéen a ko gisandoo tey nag ñu ngi woon fii ah ci ci Fass Conteneur si woon benn ndaw ah di Cheikh gis ngeen mu ngi noonu depuis ce matin ba léegi ñu ngi yendoog moom muy déroulé di ñu xamal li ko dugal ci waar bi ak li ko dugal ci business bi li ko dugal ci job bi fu mu tàmbalee ba tey jii nii fu mu fu mu ne. di di bëgge ñëpp di jaajëfal ñëpp ah di bëggee suma frère ah Sega Diagne la golden boy ci caméra bi ah. di bëggee chauffeur bi Aziz di ko jaajëfal bu baax a baax a baax di bëggee gars yi ñu si jàpp ñëpp di bëggee suma frère ah, Moussa Fall euh, duñ ko fàtte benn yoon ah parce que moo coordonné émission bi ah bu lii amee ginnaaw yàlla moom la moo ko coordonné def ci ay jéego ba émission bi ama ah. moom frère Moussa ñu ngi lay bëggee ñu ngi lay bëggee di la jaajëfal bu baax di bëggee sama gars yi sele gars yi bu ñu liwee ñoom ñëpp ñoo ko coordonné ay ñoom Papis Diop gars ñoom ñëpp <laughs> ñoom ñëpp ñoo ko ñoo ko coordonné ah, ba lii am di leen jaajëfee di leen bëggee ah gars yi mu ngi noonu fépp foo leen nekk ah boo leen ñu wooyee ñu ñëw wuy si leen xam nga fesal seen i yëf fesal seen i mbir yéen a xam ca lépp la nga ne di ca yëngu di ca daan sa doole numéro bi mu ngi noonu 77 la 208 25 56 77 208 25 56 wala nga woote si 76 245 21 57 76 245 21 57. boo ci wootee dinañ la seet si ba fa nga ne yaa xam ca la nga yëngu dinañ la seet si fesal say produit yaatal ko génnee ca la nga yëngu. feseel sa job yaa xam ca la nga ne ak ca la mu manti doon di leen bëggee di leen jaajëfal di leen jox dig daje ci beneen numéro ci beneen level ci beneen beneen beneen vibe si seen émission di Job sa life le métier de la vie jaajëf bëggee gars